kii nag li muy wax ci troisième mandat dama ne xanaa nag sénégalais Macky Sall du tiim sénégalais wax fi bind fi def ci livre wax àdduna yëpp di ko dégg ne leen nul ne peut faire plus de deux mandats nit du tegale ñaari mandat tey nekk fii di wax ay quinquennat septennat vingtennat trentennat dama ne buñ ko ko nangulee si cinquennat bi bu jeexalee wala bu demee dina leen waxaat beneen septennat bàyyi woon dama ko ciy boolewaat pour doy waar benn set gis ne dama ne bu ñu naxante moo waxoon àdduna yëpp di ko dégg ngir yàlla rek na respecté kàddu googu. mais qui vous dit que président Macky Sall bu bu bu bu bu bu posé candidature mooy gagné. non du question day gagné de dafa warut a bokk ba pare bu ñu jox droit ku warut def droit am bu ñu ko weddee man waxuma ko moom moo ko bind ci livre ma rappelé leen ko yéen ñi jàng peut-être ñu jàng ngeen wax ñu. ne c'est clair. écrit la constitution j'ai dit que mandat de cinq ans renouvelable une fois ajouté j'ai ajouté une clause qui tue le débat persiste toutefois nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs si je suis réélu en 2019 cela veut dire j'ai mon second et dernier mandat 7 plus cinq faudra partir maa ko bindul maa ko votelu du moo ko waxoon waaye léegi ñii ñemewaat nañ taxaw fii ci réew mi ne loolu moo waxoon yépp ñoom sax dama ne yàpp ko weesuwul mu waxoon lii bind ko wax ko bitim rek wax ko lépp tey ñu taxawaat di ne nañ ko jox troisième mandat même bu defaroon Sénégal ba mu ne pénal day dem. keneen ñëw bu ko neexee mu ñëwaat mu respecté kàddoom na respecté kàddoom.